Tuma, tuma, tuma Ready tuma Man dañ tuma tuumaal tuuma wax ji na banope ay waay ba tax na dootul rafet tax nga noon yi kontaan gi mari fu ma romb wedi seytaani waxul dëgg waaye yàq ni xalaate dañ ma tuumal tuuma man dañ ma tuumal waxal la loo deful dafa metti ba tax na war nañu xool ki ñuy waxal ki ñuy jëflanteel waay waay man mi Touba jàmm la wax dëgg yàlla war ngaa toog benn place na yow looy wut mbiram la ci nga ñëw mbiram la ci nga ñëw lu xew am foofu la woon daa woon ni ah, man doo tax a si palaas bi may toog duma yokk sama suur lu leer laa la wax. defal ndànk boo defee ndànk di nga xam lan la lu yegg seeguma sax nga commencé coow lan la defal ndànk. soo déglu di nga xam lan moo ma fi indi looy ci bu nag Adja dafa feebar xam nga ñoom seen famille dañoo non non non déglu rek nag déglu nga ñoom seen famille dañoo am euh, Binta mënoo dal. maa ah, ngi lay parce que maa ngi wax ngay wax. damay wàññi jour moom rek. léegi maa ngi nekk ci lan moo lan laa fi ñëwee ak lu mu fi du ñëwee c'est pas à toi de me xanaa kay damaa baax rek di la expliquer lan moo tax ma ñëw fii. man maay sa kilifa doo sama kilifa danga may déglu moo wax la lan moo tax ma ñëw fi mais du yow yaa may sax utal ay bés yu ma fii ñëw fonk la rek baax moo tax ma lay expliquer voilà. maa nga jaaxle. sax mbaax ci expliqué. waaw waaw ñu leen kër Adja. waaw léegi ah <laughs> da ngaa jaaxle. waxal maa ngi lay déglu. voilà voilà léegi ñu jubóo dafa feebar. xam nga ñoom seen famille yi dañu am euh, drépano xam naa nag temps yi c'est c'est sa période moo tax euh, ma nga hôpital mais comme euh, sa famille am na ñenn ñu ko koy assister alors je me suis dit mieux ma ñew ba mu tané na sax mais pour mu gëna mu gëna tané wa tax ma ñew fi mais c'est pas autre chose. gré panneau. wa gré panneau laa wax. da jàmbaar da cancer. ah xana gis lu do rek may rétan ah ma xala lima jig jugul ñepp di. Mhm. te am na ñoo xamante ni dañuy gis ñaar bëggante ñu ñëw dugg ci yàqu mais loolu du ñëpp la jig de doom nday <laughs> terrain bi may fubalee xale bu fa dugg ma dam sa tànk te yow da nga yaakaar ni yëguma li xew damel dalaa biiral dégg naa ko bu yàgg fii Cees dara du fi umpe dama laa mujjee yërëm ca dégg naa dafa bañ doom ji ndeysaan sa yaay nag nu mu ko dundee <laughs> xam nga yow loox nga bëgg ñun ñu gànnaar waaye xam nañu caay ak mul faafa upp pour damel nga ne yow terrain boy football xalé bu fa du nga dam tànkam masakren, nga ndax man ma ñew baham la damel ñëw dëbbate la ba nga mokk ru mbax ma rombu la damel xam nga ni damel man lay wër ba guddu jot mu jall ndank sens contraire yow mom ngay wër nga ne damel dama ëmbal fofu nga ñaké sens ndax bu ma wasin daf may takk force nga perte. Ah, d'accord donc amoo choix yow yaay xale yu jigéen yoo xamante ni bu ñu bëggee sëy ki ñuy sëyal bañ dañuy ëmb pour dugg ci sëy bi dara jaralu ma ko ma damaa toog fi ma war a toog damel ñëw fekk ma nekk xale bu ndaw nag pour yow dama yomb li ma yombul moo tax da damel violé ma waaw. ay. Ajaa daa juum walaay te yàkkamti Adja bu xamoon li ma xam wala laata muy jóg dugg ci yow mu rond koñ bi laaj leen njaay kan damaa laaju man li ma daj yow kenn du noppul kenn du toog benn place jox ma lii jox ma laa boole kook soo ñëwee say wax yu doy waar Adja attanu loolu Adja dafa tuuti yax bee ndaw xam naa ni la xol bi ndawe su fekkee da ngaa jël yooyu yëpp rek teg ko ko cancer dong ci toog yërëm naa ko de dëgg yàlla cancer dëgg moo wér de. lan moo tax nga soxor. lan moo tax nga soxor yow sa xol bi doo ko defar Binta toi tu es yow mënoo yéene nit ñi jàmm xanaa. mais yow lu ñaaw rek ak lu métti rek ngay yéene nit defaral sa xol bi Binta dafa dra euh, Adja dafa drépano nga naan ma ay cancer di tibb feebar ba gën a bon di ko jox mais yow ku soxor nga. xanaa man kon yéex naa yéex naa soxor de ah naa soxor ba ma la juralee ñetti ponkal amal naa la ay futanke di te amoon na noo doon may ay fas asinaaru góor laay am. waye ay fu tanké la am. waaw lan motax nak nga nga wax lan motax nga né bint ak euh, Adja xamul fu mu dugg parce que man duma ko baax suma ma doon ko bon yow do fi tok ba am fi loolu. waaw wala meñ suma ma doon ko bon duma fi tok ba jur doomi ma juro jaw ya yaa ma wax rek ma tontu wa mo la mi du lekk morom ma ta ñoom. defal sa xol bi rek. mo sama xol xam nga ni man xol bu set. wicc laa yor da nga di ñu nit ñi jam man sama xol bi da set wicc. moo waral nga dëddu wan ma ginnaaw ma toog di gérer nga ni fekkoon na ku ma xool di samay pantre yi di génn waaye dama damaa fees sama place xanaa xamoo ngoon yi àndoon su ma meloon ni yow damel du ma violé te sax yow man damel topp ma ko moo may topp fu ma dem mu dem fa di ma wër nga yow dangaa bëgg xam yow nga ni dangaa toog moo yow fabi <laughs> fabi yàgguma fi moo ñëwee Sénégal de mais seul dictionnaire lañ ma tegal ah pour yow hmm. mu soo réglé seen kër yow yaa koy dëbb ba mu mokk rumbax hmm. masamaak feneen ak feneen ak feneen yow sa réglé danga koy dégg rek mais defoo ko pour kaaw dammel nag comme dangaa bëgg a xam sama ëmb bi du ci man ngay xamee boo bëggee loo xam dang koy wuti ndax man ak bokku ñu classe récréation mo ñu bolé ay dang may rétallo mais na la ñamal tuuti bala may dem parce que au temps di wax ak gel yu ben yaw parce que da nga perte perte moo tax nga top goor bam lay biral yaa ngi dégg mel nak man lay wër bu la diggé tak bu la yeboo xamni day fen taqu la man lay tak ma ñew sey lu neex té xalé bu jigéen buy sop ba duggal ci sa loxo ma damm sa loxo boo ko lekkee ma nga di ko goxati <laughs> wala yow yëgoo lool. yaa ngi juum nag nax nga sa bopp yow nax nga sa bopp te fii laa lay bàyyi train bi romb la. ah bon pour yow mii. Hmm. doyoo ma xëy sax. kon nañ ci dem. foog ni fowukaay la ku dem dellu siwaat foog ni fowukaay Sylwch o leina ti Lwai di renni tei la Ma Oui ma man rek Non, tey fii ndox sax doo fi naan est may dégg ndox ko fi et puis yow yow ku ma bett nga jaruma xoole ku ma bett nga yow nan nga mën a ñëwee sama kër dara xewul nga bëgg a tas sama famille tu viens dans ma maison voilà écraser sama famille yow yow kay nga ñëw toog ak sama yaay di ko wax ni bàjjan Bella ak bàjjan Fadam ñoo la complet pour nga ñëw di lekk ci man pour di leen jox yow nan nga mën a defee loolu. ah d'accord je comprends non dégg écoute yow yow su ma dundee yow un mois saa waay nga nga nga mais nga tas gàlle bi man dama yaakaaroon yow au moins si tu viens chez moi voilà maa ngi yow dinañ dund relation bu na di nga di nga tey mais li nga def ni ken xamul lan la ben affaire na la ko wax sama relation yow tay lay dak dama lay wax lu leer est-ce que yaa may dégg. Kamel je comprends man ma ñew sa yaay. ne ko sa bàjjen la xaw ma ñu mu poussé ci yow pour ma lekk la te gis nga loolu bu bu doon démb bu doon tey dama koy defaat. parce que sa bàjjen yooyu duñu ko baax te man su may ànd ak nit damay ànd ak nit ci dëgg ak ci ngor sa bàjjen yooyu baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg moo tax ma ñëw wax ko saye lan mooy problème bi. mais ça va. ça va kay. yow xamul loolu lan laa daj pour sama yaay ak sama bàjjen yooyu jubóo presque des na déglu rek presque des mois sama yaay day jaar nii sama bàjjen yi jaar nii ma ci xex suba ngoon du matin jusqu'au soir fexé bañ djibo nga bëgg ñu bëgg tass même pas un mois. sa bàjjane bu ñu baaxul nag sa bàjjane yooyu du ñu ay. nit mais yow kan moo wax sama bàjjane baaxuñu. parce que baaxuñu bu ñu baaxul. lan mo ci wor da nga may dégg buñu ñu est ce que dinañ ñëw ba ci man naan ma naala lek ma bi ko rew yow da nga am lu kenn amul wala da nga mel lu kenn melul wala da ngay lek lu kenn lek ba mëno respecter sa mag a chaque fois jàppal góor a bàyyil ma jóg jàppal góor a bàyyil ma jóg ngeen mel ni ku bokk ndey ak baay lan la ah xam nga lan laa la yëgal fii lii ma bëgg moo fi am rakk day topp mag mag yërëm rakkam lu leer nag laa la wax histoire yi na doy wala ay ennemi ngeen eh merde waay Oi, yaay mom ennemi la ma jàppe kii yow yaay waxi waxam sax mais ma jóg burumaa sax waxi waxi ma jóg parce que ma jóg lañu waxtaan ma góor dañuy dem ànd ak sama papa ñu dem jëli Amina mais Madiop tek un pas defaat vingt pas en arrière Madiop noonu lay dundee ak man rakk joo xamante ne bii fake la lu mu la wax ci du wax ma jóg du nit ku baax man je ne sais pas quoi xaw lu ma dal fab yi nii man rakk yi ma am non c'est mais c'est pas possible yow su ma doon tànn rakk yow duma la tànn ma jóg vraiment. grand man su ma doon tànn mag man duma la tànn parce que yow doo mag bu ñu nawloo mais ñëpp gis na li xew ni nga téye Amina téye ko comme ni nga ko war a téye. yow Amina sax mooy jël xaalisam di la defal ci góor war ngaa jomm loolu sax gis nga man mère bi laa ci rus mais sinon dinaa la wax loo xamante ne yow dootoo ko fàtte ba mukk j'ai beaucoup de respect nag pour toi. kay may dépassé ma mais nag non mais dëgg moo neexul dëgg moo neexul te dëgg te dama la koy wax. yow sa sa bu la bëgg dina ñëw ba si man naa ma naa lekk yow man ma bàyyi lépp bàyyi affaire yooyu yëpp ñëw ànd ak yow si ngor tey nga ñëw fi naan daa am loo may reproché benn affaire laa wax man sama bàjjen yooyu ñoom laa am lu ma am ñoom laa koy bokkal xam nga lu ma bëgg que ce soit la dernière fois ngay teg sa tànk ci kër gi. Ah non sama relation yow dafay dàkk.

Hmm. oui ma est-ce que xam nga mu doon mu doon du ma doon teg nii. lan nga doon teg. sa mbëggee la doon xool toll ci man mais gis naa ni tu m'aimes lu ndaw yi da nga bëggoon sama pour lan. xanaa xam man fii unique man kenn du ma laal kenn du génn ak man un mois après nga sànni ma ni. pour lan dama doon xool. sama papa ci kaso gële lay tëj boo ma ma. kon yow tëj ma. ah soo ma bawee kañ ñu tëj la. du bàyyi dama don xol fo toll ci mom gis nga grand ñëpp dañoo am ay mag yu bax yo xamanteni dañuy xol ci mom pour roy ko mais yow lolu nekkul ci yow man buguma am mag comme yow de nga xam ko tay nak sama yaay ji nak la rus parce que amna luma koy rusee sama sama yaay mom mo sukk jurma motax buguma egg ak yow fenn. ma jog mag yow ba fofu mais bien sûr ma ragaluma loolu de. eh yow daaneel la ko ma yaa fi wax loolu yëpp yaa jëf waay dëgg daa neexul de yow ñàkk fayda gi ngay wone ba rusatoo ma sax ci biir kër gi góora li may dégg bu dee dëgg la. bis bu ma ci yeme di nga dina metti torop ci yow dina melni du billahi ya ma ya ma sut ya ma man xamna ni ya ma man di dole ji nga ko ndax perdre na waaye xale bu jigen bi nga eumbal te muy ñew ci biir kër gi bis bu ma ko yemee si biir néeg bu ge di nga am lu la sof nit day am fulla am fayda am lu muy rus lu muy jom yow Amina ñu ngi lijjanti kawam paregul ngay jëli jigen di indi ci dugal sa biir bi lan la lu xew na nga réglé Amina laay lijjanti nu mu ñëwee fii yaayam ñëw na fi ba ma waxtaan ak moom ba pare bu soobee yàlla balaa yàgg tuuti dina njëkkaat xale bu jigéen bi nag bis bu ma ma sax laa koy dénk bis bu fi dugg duggati ci biir kër gi dina ma ko wax te bu keroogee. kan ma la wax loolu. eh koo ëpp ti mbokk mënoo koo jaw fii kër gi dara mënu fee umpe. fii ah, man dañ ma tuumaal tuuma weddi tuuma man dañ ma tuumaal.